le véritable problème pourquoi fonds de concours yeeg fonds dotation yi nga xam ne mairie bu njëkk dañ ko daan teel a jot mais cette fois ci dafa am blocage bu ci am lan mooy lan mooy lan mooy les ci retard boobu pour yéen les maires conséquences yi moom hmm. c'est c'est c'est kenn mënu ko mesurer hmm. déjà la cause ñu duñ ko mën a xam mais conséquences yi ñun lay dal directement parce que état ci développement ci assoiru développement dafa théoriser décentralisation jël ci yenn ci ay pouvoir am dénk ko collectivité ak compétence am dénk ko collectivité territoriales yi territoriales yi collectivité territoriales yi à leur tête les maires mhm. war a jël en charge yenn préoccupation yi te boo xoolee am na ci communes yi nga xamante ni mais bariwul Sénégal yi am une autonomie financière yu basé wu sur des ressources endogènes maanaam ci seen biir gox la ay ressources yu ñu mën a développer yu ñu yu ñëw di approvisionner budget di am loolu amul suñu collectivité yi bi ci ëpp tey ci ci ci état lay jóge ñun nag ñu soog a def jéego tey dans le cadre de la coopération du partenariat mën a indi leneen donc fonds yooyu bu retardé muy fonds euh, mhm. de dotation yi mhm. muy fonds d'équipement yi muy euh, euh, yeneen yi donc ça pose un réel problème pour que ñun ñu mën a def jéego yi ñu war a jëf très mhm. rapidement li ci gën a metti mooy dafa ñëw ci contexte boo xamante ne vraiment c'est pas bien réfléchi mm. parce que bu nekkee ni mandat bu nekk en cours grawul parce que le maire euh, dina asseoir au moins yenn yi ba nga xamante ni bu amee retard fond du nekk jafe-jafe ci moom mais pour une nouvelle nouvelle équipe mm-hmm. pratiquement euh, c'est la c'est la c'est la majeure partie ci collectivité yu bari dañoo changé mm. un nouveau maire nga installé ko sans ressources parce que année année euh, maire yi les maires sortants du ñu def ay report yu mm-hmm. yi ñuy def ci budget bi en fonctionnement comme en investissement souvent boo xoolee day tolloo juste ak seen ay retenue de garantie maanaam mhm. bor yi ñu yore wala boog yenn travaux yi ñu war a exécuter nga xam ne laalaat ci beneen exercice bi te wóoru leen ba xam dinañ fa toog wala duñ fa toog donc ils sont très minimalistes mhm. en report ce qui fait que le nouveau maire bu ñëwee du fa fekk ressources yu dara. Mhm. du fa fekk ressources yu am solo yu tax li mu bëgg a def mu def ko donc suñu demee ñun ñu installé ñu le 12 février ba yaakaar naa une semaine bi passé il y a à peine 15 jours je pense la ñu soog a alimenter euh, fonds de dotation euh, donc. ça pose un problème ce qui veut dire que donc. depuis mm-hmm. euh, depuis février ba léegi euh, on était dans le maintien. Mm-hmm. Euh, mais terewul tamit ñu boole ko ak suñu njàmbaar ba caxar fu mu wootee rek ak lépp lu ñu askan bi am ci ñun. ñu mm-hmm. continuer di def nañ ko daan defee ba ñu nekkul maire. jël suñu doolee bopp jël suñu doolee partenaire. ak yeneen ak yeneen mën a mën a mën a. amu leen amu leen ay retard de salaire ak yooyu comme ni ko yeneen communes yi amee. amul amul amul caxar. d' accord euh, ñu ngi ciy góorgóorlu li fi jaar yëpp tamit. essayé nañ def le maximum. pour satisfaire ko muy tàmbalee ci kooru daaw gi li nga xam dañ ko war a jàppale nit ñi pour ñu mën a woor ci ak seen dignité def nañ ko bu ñëwaatee également ci appui tabaski mhm. bu ñëwee également ci fourniture scolaire euh, euh, on a réussi une prouesse ci fourniture scolaire yi parce que contexte bi fourniture scolaire yi di am euh, école di ubbi autant pour moi avec euh, le slogan ubbi tey jàng tey dafay fekk euh, mbéy mi du du ñoragum mhm. ba parents yi mën a am lu ñu jëndee Euh, fourniture mais dafay fekk également xale yi impliqué wu également sur les travaux champêtres boo leen motivé wul par des fournitures jënd leen jënd leen mhm. yooyu yëpp duñ jàng si waay duñ leen libéré donc mhm. nous on a fait vraiment un grand pas ci mhm. daal principalement indil nañu jafe-jafe bu mag a mag a mag li ci des tamit muy fonds d'équipement yi ak euh, li nga xam ne moo war vraiment moom la ñu war a injecté ci surtout euh, ci volet investissement nañu ci état jàppale mu diligenté ko très rapidement parce que ñu wax ko ñu bañ ko wax nag euh, collectivité territoriale sonn nañ mm-hmm. maire euh, un maire je dirais moom moo gën a sonn parce que moom mooy ki nga xamante au quotidien day nekk en contact ak les populations. Mhm. donc loo ko dimbal rek doyul. mais nag tooguñu parce que dans notre stratégie. am ngeen ay pexe yoo xamante ne di ngeen mën a. voilà am ngeen ay pexe ci kanam tuuti dinañ gis. d' accord extraordinaire à Caxar. d' accord d' donc mbokk yi je rappelle que tey Abdoul Aziz Diome la invité moom euh, euh, contrôleur des impôts des domaines la euh, nekk également le maire de la commune de Caxar Caxar léegi jombul xam ngeen fu mu nekk ngi ci département de Bambey